salaamaaleykum gars yi Fambaye sonn na barki alxuraanu karim Fambaye sonn na interview bu mu def ak waa Seneweb bu ngeen ko déggee ni muy wonkoo ak ni muy noyoo ci micro bi kii sonn na fàmbay ku ne xam na ne mi ngi ci diggante dee ak dund dee ak dund bakkan dafa foor Dakar Buzz may leen ma jàmm ak Ibra moomu ngeen di wane naan dafa ñàkk kayitam ak euh, dafa war a tukkeeg bakkanu Fambaye bi lanu tal bakkanu ko gën a foor fuuf fàmbay lanu bëgg mu wér jàppale leen ko ngir yàlla ana ñiy pasar pasari seen xaalis bi xew yi ngeen di yàq ay 7 million ah koo xam ne bu la génneewul télé doo maye ana seen xaalis bi ngeen war lan leen di jariñ def leen effort kii jéem a génn jéem a dem faju ji ngir yàlla ak wayonte bi état Sénégal état Sénégal nag fi ma koy woowee naa leen ko wax xam nga Fambaye génn na mu daan ne ah am na docteur yu ko mën a faj Italie gratuite te du fay dara loolu dëgg la man mi maa ko dox. ba tey suba ko def vidéo ma sama mag moo nekk ci ci mooy liggéey ci commune communauté bi moom laa woo wax ko waxu Fambaye mu wax ak gouvernement bi am ñu ma jege am connaissance man moo ma indi Italie wax ak ministre yi ñu jox ko ay information yu leer ba d'accord na ñoom mën nañ koo faj gratuite yu leer nañ sax kay mais nag dañ koy wutal vol espécial ndax munta bokk ak nit ñi vol di voyage loolu rek a manqué ci affaire bi loolu man mii maa ko dox musumaa toog wax ko woo leen Fane Mbaye téléphone ngeen laaj ko li muy wax ci vidéo bii kan moo ko dox man la musumaa toog ba wax ko parce que Wally Seck génn na def na effort man may doomu ndaye man tamit faaw ma génn def effort léegi nag bun amul ba am xoo xamante si nii mënu koo dimbali te yàlla tax pour Fane Mbaye faju beneen solution bi ñu am mooy ministre bi dina bind fooy gouvernement Sénégal fooy buy wane ne moom mooy jël engagement bi moo jël lépp pour pour pour faj ko def ko ci fooy lenn rek lañ soxla ci yow Macky la muy nga jox ko visa yaa ngi dégg nga jox ko visa mu mën a génn yaa ngi dégg mën a ñëw parce que am na droit pour ñëw léegi ñaari option yooyu rek am bu ngeen ko mënee dimbali ba nu mën a jël vol dugal ko ci faju bi laaju ñu leen tous dara du ngeen ko dépassé léppam fi muy nekk ak hôtel baak lekk mag a mag fajoom ak ba nii fàmbay di wéree laajuñu kenn ñàddërëm man maay wax man boos day néegri laajuñu kenn tus ñun daal nan am vol rek nan am vol boo xamante si nii fàmbay dina ci mën a dugg moom kese pour ñëw Italie yaa ngi dégg mais lépp sama mag bi lijjanti ko lépp ministre yi wax na lépp confirmé nañ tout loolu man mii maa ko dox musumaa toog boo wax ko parce que Wally Seck fu mu defee war naa faa mën a defee ndax sama doomu ndey la ku wedd lii may wax nag woowal faa mbay téléphone woo ko téléphone nga laaj ko li may wax bu baax man du ma waxant lu ma mas a wax rek dëgg la jàppale leen ko jàppale leen ko mu faju lii mooy wax bi waaw kay merci